ndokkeel xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour ak mboolem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick ci bi nga xamante ni charia dab na ko moom sëriñ Babacar Sy Mansour mu tëj jumaa ji bi nga xamante ni dem na ba àgg ci ñu war koo tijji mu dajalewaat njaboot gi tijjiwaat jumaa ji tëj ga lu war la def na ko tijji gi bi mu waree def na ko kon ñu ndokkeel ko ci alquran dafa waxoon ni fasbir inna waadallaahi xaqun wala yastaxifannaka alladina laa yuqinu kilifa bu jiitee njaboot te njaboot gi mu jiite ñépp kenn mënu koo jam ci wax kenn mënu koo jam ci jëf daañu ko sant ñaanal ko yàlla ak yàggam fi ñaan yàlla it naal yi mu naal ci lislaam bi naal ko ci kër maamam Cheikh Seydil Xaaji Malick radiyallahu anhu naal ko ci tariqa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñu ñaanal ko yàlla naal yépp mu àggale ko bu ko àggalee mooy yim fi fekk maamam naaloon ko ay baayam naaloon ko ay magam naaloon ko mu àggale naal yooyu bu ko àggalee yàlla na naal ay naal yi boppam àggale ko insha allahu taala yàlla may ko wér may ko fekke waaye may ko tal jumaa ji nga xam ni moom la song pour àggale jumaay maamam ji nga xam ne mooy jumaay Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla may ko buy àgg yàlla na ko fi fekk bu ko fi fekkee yàlla na fekk mu tal ko bu ca àggee insha allahu taala yàlla na ko jiite bu ko jiitee yàlla na ko julli ay at julli ko ba xelam dal xelu njaboot gi dal yàlla na ko fi yàlla yàggal ñépp mbooleem taalibe yi ñu ngi àndandoo di ko sant di ko ndokkeel waaye di ko ñaanal yàlla ndax kilifa bu fekkente ni laaya yooyu ma wax léegi am na ñoo xam ne dañuy jàpp ci dara pression bu bari yëngal leen ca wala wax ju bari jële leen ca wala ay coow jële leen ca waaye moom kër si Babacar xaw Mouhamadoul Mansour adduna àdduna yépp xam nañ ni ku constant la ku dëggu ci li mu nekk la ndax commentaire yëngalu ko wax ji yëngalu ko amul lenn lenn lu ko yëngal bi nga xamante ni war naa tëj rek tëj na mu tëj ñaar fukki weer ba tëjji jotee mu tijji mbooleem taalibe yi maam Cheikh Alxaaji Maalik gi àndandoo ci tëjji ak tijji gi ñépp bég ci it ndax xam nañ ni moom du def lu muy defe ci bakkanu bakkanam du def it loo xam ne bu koy def du waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal kon si Maalik yàlla na yàlla dooli la wér ol arab bi nag dañuy wax ni man tabia tubia wa man laa falaa ku toppee ñu topp la ku toppiwul kenn du la topp bi fi say mag nekkee da nga leen a toppoon topp say mag yépp ki ci mujj muy sëriñ Abdoul Aziz Al Amin dañ nga daan wax ni man bëgguma gisuma lu Serigne Abdou bëgg laa bëgg lu mu gis rek laa gis topp say mag noonu nga toppe woon say wayjur kon ñi fi ne di njaboot insha allahu si daañu la topp ñaan yàlla yàlla na la fi yàlla yàggal am na nag benn mbokk bu ñuy wax Iran mu wax ni ubbi jumaa yi warul woon tëj gi warul woon moom li war ak li war di ñun laajuñu ko ndax moo toogoon ñépp dégg mu ni man Tiwaawan nenuñu ma kon ubbi ga ak tëj ga laajuñu la ko te Sénégal dama bëgg ñu ay xel leen wala àdduna bi diggante tëj gi ak tëj gi wax na ci ñaari wax yi wuute ba ñuy doog a tëj la tàmbalee wax ay gaaral di jëmale ci kilifa gi di jëmale tiwaawal di gaaral di gaaral ba ci yàgg mu wëlbati gaaral yu soppi ko tagg di tagg di tagg di tagg ba mu yàgg mu wëlbatiwaat tagg ga soppiwaat ko ay ay gaaral Serigne Cheikh Tidiane si almaktum nag dafa waxoon ni madaxan wa zamman qad samita walam takun mimman yu baali xawlatan li xaquudi Serigne Cheikh moo ko waxoon papam Cheikh Hadji Mansour ni ko papam madaxan wa zamman qad samita walam takun tagg ak ñaaññi ñam ñaar ñëpp dégg nga leen waaye walam takun nekkoo woon di ca faale mimman yu baali tan li xaquudi yow faale woo ku lay tagg faale woo ku lay ŋàññi kii fi nekk tey nag muy xalifa bi ak njabootu maam Cheikh Alhaaj Maalik yëg nañ ni faale wu ñu tagg ñoom faale wu ñu kon yow miy tagg bu tayee nga tagg bu subaa nga ŋàññi gaaral yow la kenn xamul loo doon te nag waxoon naa la ni la am ku doon rasulullahi di ko doon naa leeg léppam yonent bi sallallahu alayhi bi muy nekk ci jamono am na ñu dëkkoon ak moom am na kuñ ci doon wax Walid ibnul Mughira dama ci alquran Walid ba mu songee yonent bi di ko gaaral lu yonent bi wax Walid gaaral ko yaayu Walid woo Walid bis ni ko Walid mu ni ko labbayka mu ni ko moytul doomi Abdoulaye ji ngay gaaral xanaa xamoo ni doomi Abdoulaye ji ngay gaaral su fekkoon man mii sa ndey déggal nga ma di nga ko moytu moytu ko Walid continuer gaaral rek di gaaral yonent bi sa bëggee wax yàlla ni ko déedéet bul wax saxaaba yi kenn tontuwul yàlla xëy bis ni ko tontu du forox beneen bi mooy sëriñ Babacar gis dañu woon bu nit di jàng wax jàngal tontu yàlla ni ko noppi rek bu tontu jotee ma tontu la walit di wax di wax di wax di wax ba jàpp ni moo ca ne waaye ba alxuraan ñëwee tontu na walit wala tute kulla xalaafin mahinin ba mu jeex tontu na walit am na loo xam ne nag boroom téere yi nee nañu ku ko sañ a waxee rek am na loo doon yow am na noo xam ne ku set wecc sañu ko koo xam ni kër gu toll ni kër maam Cheikh Seydul Hadji Malick yàlla dogal ki fi ne muy Serigne Babacar Sy Mansour topp ay magam topp ay baayam ba ay baayam dem ay magam dem mu ne ci kër gi képp koo xam ne njaboot ga li mu def ànd nga ci ànd nga ci amul benn njaboot bu génn opposé li sëriñ bi def amul benn njaboot bu génn wuuteeg li sëriñ bi def beneen bi ci des mooy téere sharia yaa ngi fi fuqaha yaa ngi fi imaam Malik muy imaamu daarul hijra mooy daje ci julli salaatul jumaa ak salaatul jamaa bu ci nekk dafa am ay charte charte ya bu dajewul mën nañ ko ba a def beneen bi mooy Tiwaawan dëkk la boo xam ni bërki démb bi boo ko ubbee àdduna bi fàq fekk la fa bu nit di fàq di la fekk indaale fa jàngoro kenn waxul ni bu ñu ñëwee jàngoro da dal fii kenn ragalu fi jàngoro nit ñi yàlla lañu ragal maam Cheikh Seydul Xaaji Malick maamam moo waxoon ni a'uuzu billahi min xawfil anaami wa min ridan anin nafsi hammi rizqi yàllaahu ñoom ragaluñu kudul yàlla waaye boo demee ci yonent bi julli na salaatul xawf da daan xeex ba xeex xare bi metti julli jot yàlla ni ko xaajal xaajal soldaar yi ñaar ñii nañu xeex ñii julli yonent bay jiite jiite ñii ñaari ràkka ñoom ñu sëlmal daw dellu ci xeex ba ñeneen ñi ñëw julli ñaari ràkka waaye ñaar ràkka yooyu ñoom ñu bàyyi fu ñu ko teg lu ko waral mooy salaatul xawf ñoom de saxaaba yi ak yonent bi ragaluñu woon ku dul yàlla waaye yàlla digaloon na leen ñuy moytu wallaahu yaasimuka mina naasi yàlla bu demee bay ñaan ñaanal yonent bi di ko wax ni ko muccal naa la ci nit ñi di ñaanit nit ngay mucc ci nit ñi kon jëmmi ñaan mucc ci nit ñi taxul ni dañoo ragal nit ñi feebar bu amee dañ ni la fa feebar ba ne bu fa dem waaye firiwul ni bu feebar bi amee bu dajaloo am bu rassemblement am waaye firiwul ni dañu ragal feebar boo jàngul nag boo jàngul nag dangay ngay noppi ndax jàng téere fiq yi wala jàng lenn ci xam-xam bokkul ak jàng xam-xam ba mu jeex man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria wa innaha jaad ala sittina baada salaati miatin tuftina mam Cheikh Alhaaj Malik moo ko wax boo péegul mbooleem sharia bul weddi benn wax mbooleem sharia nag pour nga péeg leen foog nga sharia ay ñetti téeméeri sharia ak juróom benn fukk 360 sharia moo am yow benn sharia bi ñuy wax sharia imam Malik benn rek muy ngiru Malik yow xamoo ci dara bis bu ne nga àtte fiq ci ci bis bu ne nga àtte masala juum bis bu ne nga wax dara juum ci daanu ci masala yi nga dëkk nu la neex ngay firee alquran nu la neex ngay waxee waaye pare nga rek ci ñàkk xam sa bopp waaye nag am na ñoo xam ne bu seen ndey dundaatoon kon Walid ibnu Mughira la ko ndeyam waxoon kon sa ndey wax la moytu leen ku yàlla teral am na ñoo xam ne kenn du leen laal Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour bi nga xam ne tey mooy xalifa kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick waaye mooy xalifa Cheikh Seydi Ahmada Tidiane mooy xalifa rasulullahi mooy xalifa yàlla li mu def ñii taalibe yi maam Cheikh Hadji Malick ànd nañu ci boo dul taalibe maam Cheikh Hadji Malick da nga ciy maandu dëkk Tiwaawan taxul nga bokk ci njabootu Tiwaawan xoolal ashaddu durran min al aada abu lahabin wal aswadaani walidun xaarisun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munabbihun wa uqubatu wal aasi abul xakimi abul xakami wa wa wa mut'imun wa ubayun ma'rukaanata maalikun umayatu ahlul bagyi wa qadami te ñooñu dañ daan fréquenté yonent bi ñii ay baayam lañu ñii ay mbokkam lañu waaye fréquentation ba yëpp firiwul ni dañ ko gëmoon cent pour cent am na ñoo xam ne yàlla nee na ca ësal la seen xol yi yàqu du ñu wax lu baax du ñu def lu baax bu ñëpp àndandoo ci mbégte ngi génn naa juwóog ñoom am na ñoo xam ne min ahli min min ahli naar lañu bokk nit ñi yëngu ci diine nag di liggéey ci diine firiwul ni nitu diine nga waaye yow mii kaas léegi daan wax ca tàmbali ba nañu ubbi jumaa yi waaye léegi nañ ko fooy jullee yow wala avant ñu koy ubbi foo doon jullee yow du jàkk benn jàkk booy jullee yow du benn jumaa booy jullee yow amul benn bërëb bu nit ñi dajee di fa jaamu yàlla ñu gis la fa yow jaamuwoo yàlla fenn woo fenn waa léegi tëju jumaa ji ak tëju jumaa ji lu ci sa yoon réew mi bu fi diine ji la bu fi diine ji faatoo laajuñ bu fi diine ji amee problème laajuñu la ko yow laajuñu ko sa baay laajuñu ko sa maam kon lu ci sa yoon ba tax ngay toog bërki démb toog ñépp di la seetaan nga jox wax ci média ni ubbi nañu jumaa yi waaye avant ñuy ubbi jumaa yi jumaa yi sàngam ngi woon Tiwaawan jumaa yi sàngam a ngi fa woon ñi kilifa kenn julli jiwul woon benn jumaa ñu ngi toogoon ci ndigal waaye tooguñu ci ndigalu sëriñ bi parce que dafa digal ni bu leen julli ji déedéet dañoo toog ci charia moo tax ñu toog bi ñu demee ba wóolu amit ñu solaat seen dàll ñoom doog a dem fa ñu war a jullee julli ji waat fa kon ñoom demuñu fenn yow mi naan dem nañ bërëb sàngam jumaa ngi fii jumaa ngi fii da nga koy dégg rek waaye julli jiwoo benn jiwoo benn jumaa beneen bi ci des mooy respecter nit sàmm xàq nit dafa jaadu waraa'i xuquuqal jaari law kaana kaafiran wasiyata xayrul aalamiina li sax saxbihi yonent bi nee na sàmm leen àqu dëkkandoo yi nit ñi sàmm leen seen xaq li ngeen bëgg li nga bëgg nag pour nit ñi fekk si la ci mooy fekk si la ci sa jikko olof njaay day wax ni bu la mbaam wéqee nga wéq ko yaa ngi moom a yem am na ñoo xam ne mbaam lañu ñu rek bu ñu la wéqee bu leen wéq waaye tontu leen ba ñu xam ne am nga loo leen tontoo ñu ngi sant bu baax sëriñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko fee yàggal yàlla dolli ko taxawaay maam Cheikh Alhaaji Malick tey maamam bu ñëwaatoon jamono duñu ko sëriñ Babacar changé sa toogin ay baayam bu ñëwaatoon jamono duñ ko ko wax ay magam bu ñëwaatoon jamono duñ ko ko wax li li li doy ci kilifa mooy bu tayee nga jàpp ci lii bu subaa nga jàpp lii déedéet looloo doy waar waaye kilifa goo xam ne bu la nga jàpp ca nga jàpp bu jeexee nga bàyyi ko kon njaboot gi yëpp bég nañ ceew Serigne si man suur kontaan nañ ceew ñu ngi lay ñaanal yàlla fan wu gudd di la ñaanal yàlla wér ak mbooleem sa njabootumaam maam Cheikh Seydou Hadj Malick fu ñu mën a ne ak nuñ ci mën a boqe sët yeeg sët setaat yeeg jarbaat yeeg doom yeeg muqaddam yeeg taalibe yi ñépp ñu ngi ànd di bëgg ci yow si Malick di la ñaanal di ñaan yàlla yàlla may la fan wu gudd yàlla may la wér jumaa ji nga ubbi ak zaawiya bi nga ubbi ubbi gi yàlla na fi yàlla jaare muy ubbeeku àdduna incha allahu taala nag bàyyi alaaji daaw góor mbaay nee na ma day neex ma ne ko ah mun mu ubbi gi sëriñ bi bi mu tëjee tëj gi li muy yàgg-yàgg xoola vingt waaye yëguñu ni sax 20 mois la tëj ngir ndax ubbi gi mu neexee bàyyi laaj daaw góor bàyyi nag nee na mu ubbi gi day gën a neex àdduna jaare fi neex àllaaxira gën neex ci ñun nii lay tàmbalee di neex di neex di neex ba àllaaxira neex-neex googu ku sa xol rafet nga baax danga ci bokk ku sa xol bon nag incha allahu taala neex-neex googu doo ci bokk kon ñu ngi ko doon defee fii ci suñu télé bopp muy Shamsu TV ñaan yàlla télé bi yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu bokk ci télé yi gën a ci àdduna bi in uridu ila al islaha ma stataatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu